nee nee na ko ci tey la tey suba la tali bi waaye laaxu ngénte liir bi du ko jeexal impro dafa ñëw tey ci ngénte Cheikh Niane guitariste guitariste mag bu ci réew mi ñu ànd ca kan. te dañoo contenté te mooy jour bu mag te kan lañ kan mooy ngénte te mooy Cheikh Niane mooy guitariste international mooy guitariste Walsek Cheikh Niane mooy ngénte te te dañoo content moo tax ñu déplacé ak suñu équipe ñoo fii ci ngénte bi Cheikh Niane nekk la ko xamante ne mooy renouvellement africain. mu nekk guitariste africain mu nekk guitariste sénégalais malien mais te mooy ngénte Sekiña waali Ibrahima Wade ñang yal na ko yàlla def magu diine yàlla na dund bu am ndey ak baay yal na ko yàlla xirtal si siraatal mustaqim siraatal lazina anamta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala daalin imaam nga def ñaan deni eh, eh, doom bi tudd nañu ko waali ibrahima eh, wadd ñaan waali sekk lañ ko tudde de mm-hmm. walla waali sekk lañ ko tudde yàlla na ko yàlla dundal ñu fekk ci njëriñam yàlla na ko yàlla dundal dundal mu boole ko ci mbooloo mi julliti mu jaay nabil Mustafa alaka alaka ke silaame ñuman ye alaka silaame ñuman ye ala k'a kɛ eh, silamɛ barkama ye ala ka balo k'a barka an bɛ bɛn a ka nafama ma bi jahi nabil mustafa tabarakal alhamdulilahi imam a kɛ eh, eh, noonu la suñu wolof bi leeru noonu bismillahi rahmani rahim اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والعرض ولطفت بالجنة في بدون أمهات لطف بنا في قدائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين آمين. اللهم انصر بفضلك سلطاننا واهلك الكفرة عاداءنا وآمنا في أوداننا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا سرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم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 salatan tunjina biha min jamii lahwali walafati wa taqdilana biha min jamii hajati wa tudahiruna biha min jamii sayiati wa tarfauna biha indaka ala darjati wa tuballiguna biha akhtal ghayati min jamii lkhayrati fi lhayati wa bada almamati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 di seedeel àdduna ni nit ku baax la lii am dafay wone ni yàlla mooy mooy créer ànd yàlla mooy créer ay nit dégg naa ci boroom xam-xam ñuy wax ni ñuy àndee fii ci àdduna koroog yowmal xiyaam noonu la ñuy àndee kon ànd du lu neex nit ki pour mu am yàlla moo koy sabab ba mu ne li koy firnde mooy Cheikh Niane mii Mali la soso Waali soso senegaal gii àdduna di dox ba Waali ne ci liggéey jóge fii dem Mali bu mu demee Mali la ko fa yóbbu woon du dem wuti ku mu liggéeyal walla ku mu àndal dafa doon dem ngir am liggéey bu fa war a def war a ànd ak Sidiki Jabaate ñu def benn son bañ demee ci loolu ci la gis Cheikh Niang mi te laata mu ko gis da ko dégg rek mu am lu mu joué mu ne kii kan la ñu ne ko ah c'est un petit mu ne waaw bëgg naa ko gis ñu indi Cheikh Niang mu liggéey liggéey ba waale am ci moom cofeel bi loolu amee waale waxul dara it deful dara xam naa am na nag lu mu façon ci xolam mu ñibbisi ba mu ñibbisee ñu amaat lenn lu muy def mu ne ah Cheikh Niane te ma ko fexe mu ñëw Cheikh ñëw ñëw na ay yoon yoon di ñëw di dem ba bis waale na ko te ngaa toog ñu liggéey mu nangul ko ko nangul ko ko ñëw toog te ba mu ñëwee ku ne xam ne ne yokk na ndax àdduna moom ku yokkul rek danga wàññi waaye ku déglu musigu waale bi xam ne seex ba mu ñëwee yokk na ci yamu ca mu indi njabootam fii ci réew mi yamu ca mu rafetal suñu diggante ak moom ndax bu rafetalul woon ànd bi du neex bu rafetalul woon ànd bi du yomb waaye confiance bu mu am ak mbëggeel ak cofeel bu mu am ci ñun am ko ci waali am ko ci ramdaan am ko ci réew mi moo dalal xelam ba mu indi njabootam fii ci réew mi kon bu jamono doxee ba tubaarkàll mu yàlla dogal mu am fi doom tuddee ko waali Cheikh ñaan mi moo baax nit ku gore la te it nekk bi mu nekk fii taxul mu bàyyi ay nitam benn mii mooy kilifaam mooy xaritam saa yoo ñëwee ci kër gi fi nga koy fekk muy moom it ku baax ku jàppale Cheikh ñaan jabaram doon ku baax saa yu ñëwee ci kër gi jàmm lañ fi fekk ak salaam ak accueil boo xamante ni tubaarkàlla sa xel day daal Cheikh vraiment félicitations merci beaucoup tu as tu marqué un but vraiment c'est on n'a même pas les pour te remercier parce que on ne peut pas te remercier assez vraiment Cheikh Assane jërëjëf lii nga ñaan def wane na am na kilifa kii jo suñu mag la moom magu magu waale la zoom euh, Mansour mbay moom mooy suñu kilifa fii ñu ànd ak Seydou mi Jamal mook Cheikh ñaan ñooy liggéey ci waale bokk li ñuy def bu fekkoon ne ah uh-huh. imaam waaw maa baax allah ku baax la ku boobu ba léegi mi ngi xaar macha allah macha allah xëy eh, mhm. eh, te li eh, imaamu soo déggee gox imaamu mooy baay bi mooy baay gox parce que ku am doom imaamu mooy tudde ku ñu mañee jabar imaamu mooy takk ku gaañu tamit imaamu mooy koy julli donc imaamu dañu ko war a bàyyi xel bu baax baax baax a baax a baax. dafa bañ itam yëpp depuis sànq ñu ngi ko woo fii mais vraiment ku baax la donc danga nga leen ko war a bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. maa ngi ko sant maa ngi ko gërëm bu baax a baax imaamu jërëjëf yàlla na la yàlla fay yàlla na la yàlla fay kontaan na kontaan naa bu baax a baax jërëjëf jërëjëf. jërëjëf léegi léegi yoon bi mu ngi noonu bisimilah xam nga kontaan ngeen men maa leen gën a kontaan tey eh, soo ngeen ma gisee fii tey ngir jëmm bi xam nga xale la mais xam nga xale mag am na xale xale am na na arabu ñu nee na sabiyun sabiyun walaw kaana nabiyun dégg nga eh, ku baax la kii moo ko indi ci man nee na ma jàpp naa la papa loolu moo tax bi ma waxee soxnaam am na doom ma ne ko dinaa teew ñëpp foofu taalibe lu tax indi ma taalibe yu bari tey parce que xaw ma ñi ma fekk fii loolu moo tax ma ñëw man kese ak sama doom bi moo ma dawal dégg nga macha eh, ma ñëw gis ko fi mu dëkk ma gis àndandoom lii mooy kollere àdduna lii rek lañu moom ñun ñëpp yàlla moo ñu bind ku nekk ci ñun am na li koy yàlla defu ci moomu ko deful ci keneen ki suñu ko boolee rek jàmm am xool yi ànd jàppalante ngir yàlla tax am yurmande seen diggante te may leen te jàmm loolu laa leen sant te ba léegi dénki naa leen ko bu baax a baax te am naa confiance li bi ma leen gis am naa ci yéen confiance te ku baax ngeen yàgg naa ci dëkk bi xam naa dëkk bi bu baax a baax macha allah yàgg naa ñëw ci dëkk bi te tey alhamdulillah maa ngi am ay taalibe yu bari fii ci dëkk bi man sama cosaani Mali la dégg nga eh, soo déggee Cheikh Sala mm-hmm. ñun ay waa Seex Saala lañ dégg maa ngi am fii ay kër maa nga fi ay taalibe ci dëkk bi macha allah senegal dëkk jàmm la Afrique yëpp Sénégal amul morom lan moo ko may xool yu rafet mun nañu la saag fekkee xool bi dafa rafet xam nga nit su la waxee dara rekk nga mer xool bi moo baaxul sinu nit bu xoolam baaxee mun na la saaga sax sax nga reetaan donc maa ngi leen sant di leen gërëm bu baax di jël seexu ba léegi teg leen ci seen lox denkale leen ngir yàlla tax macha allah macha allah gis na li ngeen ko téye gis na gis gis na eh, teranga bi gis nga gis naa yëpp jëri ngeen jaf yàlla na leen yàlla fay yàlla na leen yàlla may gudd fan ak wér yàlla na leen yàlla aar yàlla na leen yàlla sàmm yàlla na leen yàlla may li ngeen bëggal seen bopp di jaahi nabil Moustapha sama olof bi rax macha allah sama olof bés mooy tax ni nga taaralee bés bi nii su fekkoon ne tey Cheikh Niane dénk la boppam doo déplacé doo ñëw terewul dinañ tudd doom bi waaye ni mu taaroo nuy gëmu mu taaru noonu Cheikh nag moo gaaw ñu gaaw fukki at yi passé xamul woon waale waale xamu ko mais yàlla suñu boroom mooy dogal ay di xamante jàppante bu séq tuddee doom ñàkkul ku tuddee doomam am nay mbokk am nay xarit waaye bu jëlee doom tuddee ko waali a ah, moom day liggéeyee ko waali mais tubaarkàlla macha allah ku réglé la ku baax la ku yaru la ku yiw la ku xam boppam la donc yàlla na ko yàlla suñu borom bàyyi waali doom ji mu ko tuddee yàlla na fekkee njariñam ki ñu tuddee doom ji nag su wax na ko léegi sama doomu nijaay la papaam ak suma yaay bokk ndey ak baay mu nekk xale bu baax xale bu yiw bu gëm boppam jël ay li muy liggéeyandool daf leen nawle bu ñu yemoon ci liggéey kese du ko tuddee doom mm-hmm. mais Cheikh xaritam la mm-hmm. ci njabootam la bokk maa ngi nuyu Seydou mii nga xam ne moo fi représenté musiciens yi yëpp tey ni mu toog ni ak Cheikh noonu la yàlla def ñuy taxaw bu ñuy joué ci kaw seen ñoom ñaar li mu def nii foor na trop moom tam parce que c'est un grand musicien comme Cheikh ñaan waaye bu Cheikh Niane tudd doomam mu ñëw toog si wetam nii te ku leen xool sax boo nga xam ne da yaakaar ne ay frère lañu kon Seydou jërëjëf parce que tey yaa fi nekkal musiciens yi yaa fi nekkal waali beneen bi des dañuy gërëm imam ah, ah, ah, sëriñ bi kii Youssou Dieng Youssou suma rakk la ñoo bokk ndey xale bu baax la moom tam bu xam àddina boo xam ne mi ngi jàppale waale ci suuf ak ci kaw ndax ñu ñuy ànd ak waale yëpp ku si ne amal nga ko njariñ mu xam ko téye ñu comme boppam parce que nit ki mun ngeen nekk te du la def nawle nit ki nag bu ngeen nekkee mu def la nawle danga koy jàppale ci liggéeyam kon yuusu jaraaboot ñun lébu yi loolu la ñuy wax olof dafa ne ku def dégg ku deful doo dégg dara xam nga ma xam ñoogu mbay miy toog ak Aziz Kele mële ba si ñoom fifty ak sunu rakk yi nga xam ne ñoo yor sécurité waal yi ñoom ñëpp ku si ne amal nga njariñ waali sekk yàlla xam na la guma mhm. la nañu jàppale waali bu baax a baax incha allah yàlla tax incha allah xam nga xale la mhm. baayam dem na dëgg la mais ngeen nekk place baayam. dëgg la xam nga nit soo ñàkkee papa rek. Mm, am na lu de lu bari. am na lu manqué lu bari. Mm-hmm. donc il faut que góor góor bu baax. incha allah te xam nga Afrique. Mm-hmm. surtout fii ci Sénégal. Mm-hmm. xale. il faut entourage bi nekk entourage bu bu bu bu bu déggu. dëgg la. entourage bu baax. dëgg la ngeen jàppale ko ngir yàlla tax. incha allah. ngeen ñu xool deneen concours ngir yàlla tax bi te soo ngeen jàppale ngir yàlla tax yàlla dina leen dina dina leen jàppale incha allah wallaahi wallaahi la kitaabillaahi wallaahi li mii mhm. xamuma ko dëgg la Cissé musuma ko xam dëgg la dégg te waxuma ngir kii mu ak mhm. moo ko may li ko li mu nekk mayu ko dëgg la keneen mayu ko yàlla moo ko may dëgg la dégg nga dëgg la mais mun naa wax mais su fekkee ba papa mu ngi toog jàppale ko incha allah comme papam nekkul. Mhm. papam fi mu demee ñun ñëpp foofu la ñu foofu la ñu dem. dëgg la yàlla na yéex. amiin dégg nga. amiin mais nañu ko jàppale ngir yàlla tax. incha allah xale la. nañu ko jàppale ngir yàlla tax. incha allah àggal sa yaa ngi dégg. kon dama doon wax ne ci biir liggéey bi ñuy ànd di liggéey. muy technicien muy musicien. muy ci sécurité bi yëpp amul kenn ku joxul cër. bi nga xam ne moom nga méritoo ci moom. njóogu jërëjëf mbay ba ngay ànd ak waal yi booba wayul nga nekk président waali famille suñu ñaari maam bokk ndey ak baay nguuru amina baaba amina nga bëgg ko ñuy kaf di ree di ànd ci biir liggéey bi newu fi mais mi ngi mel ni mi ngi fi ndax ñun bu yàlla defee bu ñu liggéey ak moom ba pare ñun ñooy mujjee bokk suñu koy mujjee gis balaa tëdd ndax noonu la mbir yi demee jege te sori sori te jege kon njóogu lépp loo am yàlla na barkeel li ma lay wax tey taxul jataay bi taxul déedéet Aziz Kele sañ-sañi biram géey kewe a jaañ yow jaxeeri bàyyi maa nga ni ko waali waxee rek moo nekk ñaari maam yi bokk ndey ak baay moom nga bokk ak Youssou moom nga bokk ak man nga bëgg waali te yàlla tax nekk Amérique pendant vingt cinq ans bu wala waali fekkee Amérique yaa gën ci moom di nga fecc di nga woy di nga tëgg boole jël sa temps ni Amérique di tollu yëpp dëkk état bu ñuy dem nga ànd ak moom gunge ko bu génnee cachet doo ko sax xaar Dakar gi ñu ne lu mu jàmbat bisimilah yaa gën ci loolu kon Aziz jëf du nuy sama rakk jële buur géwél moom itamit di ko gërëm di ko sant di ñuy ni fi nekk ñëpp waaw taala Diazaka yow sunu doom nga sunu mbokk nga xam naa lu baax li may wax kële nga gën a jege Njóogu Mbay ci askanu ngéwél laax de bokk li ñu bokk lépp xajul fii bu ñu ko doon wax xaj na ñu ngi lay dégg di la gis gis ni nga bëggee waale sa mag ji dawoo dara wax dëgg yàlla bëgg ko te yàlla tax yàlla na la yàlla suñu borom jàppale li nga bëgg ci musique yàlla ko yàlla suñu borom def di gërëm ñëpp ma seen suñu benn jigéen bu toog. Fama Fama Fama Gueye. Fama Gueye. moom it suñu jigéen la ju baax. dëgg la. bëgg waali ak ku tax ci waali. ndeysaan. moom. Mhm. ak mariseen waaw ay euh, yaayam mooy bàjjenu Marisène. dëgg la. mais mu bëgg waali rek. dëgg la. kon moom sopp mhm. waali. Mhm. bokk taxawaali mu bëgg la. dëgg la noonu la soppee Cheikh ñaan bi. ndeysaan ba relation bu rafet. ndeysaan Fama moom damaa jëlee la sama bopp. dëgg la. waaye Cheikh ñaan mi séddoom la. ndeysaan ba moo ko woo yëgal ko tudd bi. ndeysaan rafet na. Faama Gueye muy nit bu baax kon Faama toogaay mën nañ jàpp toogaayu sëñ Fallou. ndax sëñ Fallou lañ dénk mari seen. kon Morog boo nekkee ci mbooloo bu taaroo nii moom tund muy jigéen toog nii. dañu koy nuyu jox ko cër bu ko yàlla jox ndekete. Mhm. moom am na cër ci bés bi. Mhm. ndax sëñ Fallou ñu ne ko moom. diggante altine ak talaata la muy ku baax di sunu xarit bokk si njabootu sëñ Tuubaa Cissé jërëjëf. benn benn géej zoo. benn mi da tëj. waaw baax na. Uh-huh. da nga xam uh-huh. rek. benn waaw. nit ku baax la. dëgg la. Cheikh Ñaan du ci dëkk bi. ndeysaan yàlla ak mm-hmm. dëgg la. lu Cheikh Ñaan soxla balaa balaa gis waali benn mi mooy taxaw. ndeysaan. te mbokkam la. waaye yàqlu ko. dëgg la. dañ ne xeer bay wéer sàkket da cay dëru. dëgg la. moom sës na Cheikh Niang rëkk. Mhm. te cofeel bi Cheikh Niang am ci waali moom boo bu ko raw la am ci waali. dëgg la mu ñëw baal si sax. dëgg la ndeysaan. ànd ak ay nitam. dëgg la ñëw def teraanga. dëgg la waaye daal. Mhm. yaakaar naa ne ku jiitu ci kër gii. Mhm. ci lu baax ak teraanga ak taxawu. dëgg la moom mii la. dëgg la nit ku baax a baax. dëgg la dëgg la. nag mun naa am ku ne. ndax dafa yaru dafa soppalu dëgg la ba pare xol bi dafa rafet ndax xol bu rafet mhm. mooy tax a def musique dëgg la musique bu sa xol rafetul doo ko def doo ko mën a def parce que musique yëg-yëg la loo ciy def ci xol lay jóge di dem ci xol mhm. boo ko gisee ci kaw seen bi nga xam ne kii xolam dafa set mhm. buy ñëw di indi projet ci waal yi ak ak xol ba mu koy indee ak yéena ba mu koy indee moo lay leer ne nit ku baax la mhm. mais du ci rëccu dara déedéet ndax jëf joo gis joo bal la dëgg la da koy sànni day dem waaye yàgg yàgg day dem dellu si kon lu waaye di def rek yàlla lu baax yàlla nay lu baax mhm. euh, Cheikh mi ngi gërëm Mamadou Dem ndeysaan Mamadou Dem Mamadou Dem Mamadou Dem Mamadou jërëjëf mhm. nit kenn du ko xeebal bisam dëgg la nit kenn du ko xeebal jàngoroom nit kenn du ko xeebal soxlaam soxlaam mm-hmm. wala kilifa te nii nga def wane na ni xeebaloo Cheikh Ñaan bis bi te euh, cëru góor ci ci ci ci ci tudd mm-hmm. mooy tudd bi nii bu weesoo jigéen ñee moome kon ñi nga xamante ni tubaarkàlla xam nañ ne seen cër ci bis bi tudd bi la ñu teel a yeewu ak nelaw ak ne mu neex bàyyi soxla ñëw taxawal sa nit kenn mënu leen a fay vraiment merci infiniment zo wax na lépp waali dafa xale boo xamante ni euh, comme li imam wax mhm. Cheikh Assane ñun ñi ñëpp xolu yërmande moo ñu dugal ci waali ba ñu làgg ba ñu làggi ca ndax boo ko gisee ak responsabilité bi mu gàddu yëpp boo dee nit di nga xam ne kii lii mu yanu àttunu ko dëgg nag boo amee njort ne ku ko yanu àttunu ko di ko di nga ko wutal téeñ ñun ay téeñ lañu ci moom léeg-léeg nit ñi jaaxle ba jaawaatle euh, waali staff ak. ñamuy àndal ak. c'est parce que ginnaawam a yaatu. dafa doon nit koo xam ne dafa njaboote. mais am na xolu. supporter ñëpp. am na xolu gàddu ñëpp am na xolu ànd ak ñëpp. moo tax yàlla na ko yàlla suturaal. yàlla oyofal yan wi. ba nga xamante ni lépp luñ ci bëgg dinañ ko am. doom jii ko Cheikh ñaan tuddee. yàlla na dund. yàlla na dund ba ñu fekk ay njëriñam. tubaarkàll yàlla bu ci rëccu am Mamadou jërëjëf bi tuuti yàq dara waaw sama wolof leerul waaw kay mais dinaa ci wax sànni ci ay kàddu ndaxte ay kàddu yu rafet rek ñoo fi nekk alpulaar yi man maanaam pël la alpulaar la euh, alpulaar yi dañoo ne ci benn kàddu ñu naan bu wax neexee day ànd ak yërmande te day jooyloo lu ngeen fi wax lii yëpp so haala weli teeyat so teeyi yurminto so yurminima woynat ɗum woni haala yàlla def na ne Cheikh Niang nekk sama rakk ñu xamante fu sori ñu xamante depuis Paris man musicien laa seen nawle laa man tamit Paris laa toog damay woy mun naa wax ne ne Père Thione je le dernier artiste avec qui il a fait un enregistrement donc xam naa ne même euh, si j'étais là dans bu mu doon bu may génn àdduna dina fekk ne ñoom ay techniciens ñu fa noonu ay ñoom Papi Sané ñoom xam nañu ma Euh, fa laa xamee waali aussi mais miinantewuñu yàlla def na ne Cheikh ñaa laa gën a miin man ma nekk guitariste woykat mu nekk guitariste mu bëgg lu may def bëgg la ma boppam euh, ma ànd ak sama doomu ndey Moussa Cissé koo xam ne xeetam la aussi foofu tamit bambara la euh, Sarakuli la ñun ñoo nekk Paris ma ne ko man bugguma dem kër Cheikh ñaa fekk man kese maay dem laa buddu ñu ànd ñu ñëw fii teew mais dañoo ne aussi boo buggee xam sa dëj lan lay mel. danga koy xoolee say si say daaneex yeeg ak say ngénteel wala ak say anniversaire yo sa xew. Cheikh Niang dafa laa biir baax. te man lii ump ma lu fait que mu tuddee waali doomam. du ma bett. ndaxte ku baax la. te waali xaritam la. il n'est pas seulement le musicien de waali. mais il est confident de Wally aussi mu nekk son poulain yàlla na jàmm yàgg yàgg ci Sénégal per bi wax na fi léegi wax bu am solo Sénégal melul comme benn réew parce que Sénégal rek mooy di réew mu teeraanga et puis ça répond à son réew mu teeraanga la quoi yow mi bu ma la gisee léegi léegi nga dugg da nga ma may euh, jëmmu Mapenda Seck. da ngeen xaw a nuru waaw. ngeen <laughs> nuru aussi quoi. jarbaatam la donc euh, l' équipe ou le staff de Waly. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. di leen gërëm aussi. Mm-hmm. ci seen teew xamoon naa ne dinaa leen fi fekk. ndaxte da ngeen jàpp Cheikh Niang comme seen doom. donc euh, yàlla na jàmm yàgg rek loolu rek laa bëggoon yokk ci quoi. jërëjëf Mamadou jërëjëf ñu ñu seede tamit Zo. soxna laamu wujaa tawi laamu suusi laamu. anu lamu findini dow leeso ñang baalo ñang baalo min mi dañi giɗo bole laaram salamale maɗa anon taniragel winda looto windane looto sehil faramare en mayasin masebigue masebigue mayasin min de mi yeriɓa jama jamaɗa caceeɗum gila mali mawngo haa fayi sénégal o mu diine rewmu teranga rewmu abdoul avisi dabah malik rewmu mam bamba ahmadou mamoudou mamadou doomu maham jara buso yaay bo yaangi prohan billahi ndakaru jali joobo sa wiyama sénégal na weli mbiyeɗa diine sénégal na weeli mbiyeɗa teranga o sénégal na weeli mbiyeɗa kollore o jaha layen tawa toon isa lay jaha sebukunta nana jasan gara kawlak dangan tawa ibrahima ñas ñasoy ñasen billahi cheikh ña baalo mm-hmm. nañu ko dagg ba beneen yoon yow mi ku baax nga cheikh ña jërëjëf jërëjëf mamadou jërëjëf jërëjëf waaw loolu loolu loolu mënut a ñàkk. waaye soo ñu ñu ñu remercier bu baax a baax a baax a baax a baax a baax waaw ja euh, euh, may ma euh, taala de une minute rek. jërëjëf yow sa taxawaay foor na ci ñun. <laughs> waaye dañuy remercier bu baax a baax a baax soxna soxna ay dara waali nekk yëf yi dafa am fekk mu mu dem voyage. waaye soxna taxaw taxawaay bu rafet. loo fi gis ñu. joxu ko fi ci teraanga ak bernde moom moo ko moo ko def ndax Cheikh Ñaan bu muy am doom ñoo ngi Tuubaa ci màggal gi fa la ma woowee ñu nekkoon ci ay xat-xat ñu daw ñëw waaye lu ñu gaaw gaaw gaaw gaaw gaaw fekk nañu soxna taxaw ci li ko war def na ay teraanga yu bëree bëree bëri moo def laax bi moo def añ yi jël ay teraanga jox soxna suñu jabar ji nga xamante ni amuñu kudul moom ba pare yamu ca yabal Salimata Gueye ak umul doomam jooju ne leen dem leen taxaw yaram wee xaw a sutante rek mais dem leen taxaw ba sama absence du fa feeñ kon ñu ngi koy gërëm di ko ñaanal yàlla Aidara Chérif yàlla na la yàlla taxawu Medoune Diop mention spéciale te xam la woo suñu leen vraiment yàlla na la yàlla taxawu ba euh, MPROD TV bokk ci télé yi gën a ci barki Mouhamed taala taala ayca maa ngi jégalu ndax yéen ñëpp roo leen wax sax ma ci teg baat ma ñëw di waxaat mën naa ne fii sama kër la nax tey man ñaar moo indi muy benn ak Waly Seck parce que man dama gëm ni nit ki sa nawle yi nga am ak si sa biir métier ñooñ ñoo say xarit te ñooñ ñoo la war a njëkk yéen a jàmm avant kenn di la yéen a jàmm suma man su may wax ci Waly Seck mën naa ni mënumaa sori parce que tey benn Waly Seck boo ko amee ci réew da nga ko war a da nga ko war a sécuriser waale boo xamee ci réew pour ñu xam musique laa wax te ñaanuñu bu ñu xamee bu ñu amee benn waar Seck si réew da nga koy sécuriser xam nga tey boo génnee wax ci Wally ñu ne gëmoo sa bopp amul importance xam nga la mooy ñàkk ba sa bopp mooy nga iñaan soxor doo dem fenn boo gëmee sa bopp dëgg da ngay nangu dogal voilà mu ngi liggéey mu mu ngi mu mu ngi liggéey mu ngi liggéey non mais boo gëmee sa bopp doo soxor bu fekkee ni yow am nga talent dëgg doo soxor parce que Wally soxorul si lu li muy def man tey maam góoree suma papa Wally papa Thione papam teewul papa Thione bi ñun ñëpp daf ñoo woo ba ci suma papa def ak moom dioo donc tey man su ma ñëwee ci kër papa Thione daf mel ni kër maam góor laa ne te tey Wally man moom mooy soo mag ndax sa papa li xamul li gaa yi umpale dama bëgg nga seede ma sam papa ñëw ba kër waali waali toog ma toog nga toog njaga oro toog ñëpp toog mu ne ko jël naa taala dénk naa la ko yaa ngi toog léegi nag pour ñi xamul ñi xam jeex na léegi nag beneen bi waaw looloo mujj sa ak coor booba sa papa moom macha allah macha allah macha allah macha allah donc beneen partie bi nag muy benn nga xam ni yàlla moom mooy boole ay nit man damaa ñëw ci musique mën naa ñetti ñetti at laa ci def bi ma ñëwee xamante naa ku nekk ñun musicien moom bu fekkoon ni ay nax moo ñuy rey moom heure bii naxalaan la ñuy deewee ku ne nax nañu mais moom depuis ma xamante ak moom amatuma problème orchestre amatoon problème dara parce que musique frère la musique frère la lu ci lépp loo xam ni taala mi ngi koy def di avancé li ko commencé 6 mois yi ba 7 mois yi benn génnewu ci loxo te pourtant amul jot il a plus de cinq employés yoo xam ne mu ngi leen di fay chaque mois donc tey bu jëlee benn taala jaza ko def ko rak def ko xarit te benn benn daf may jox tey lii soo mu jox ma lee ginnaaw soo mu jox ma lee loolu du yëfu nit sax yëfu yàlla la moo tax nag tey man ma xamanteeg Cheikh Niang bi ba si ñaan tey di am audace ñëw sama soirée tey dafa am ñaari partie muy Wally Seck barki démb damay jouer Villa Cristal Ndiogu Mbaye doo bàyyi ma fenn ma oo ko téléphone ay 22h ñu waxtaan mu ne ma maa ngi def vidéo wax képp kuy Faramareen mu ñëw ndax man nekkuma fi maa ngi États-Unis mais comme que yaay tëgg maa fi ne yow léegi gérer ma almadi bi Cheikh Niang ñëw jouer ci ay partition yu nice te mën naa ni Wally Seck bu ko neexoon Wally Seck tey bu ko neexoon Cheikh Niane du joué sama kaw seen parce que moom moo fi indi Cheikh Niane mais tey su ma jëlee su jëlee ay musiciens am euh, bàyyi leen ñuy joué ci man tey su ma gisee Papa Youssou wala ma gis Ndiogu wala keneen ñu accepté ma c'est parce que Wally moom moo doxalee noonu te man man laa man xanaa ma dee mais du ma dundee fu ñu laalee Wally waxuma nag du ñu concurrencé waxuma du ñu dem ci musique musique musique la mais man laa wax du ma dundee fu ñuy fu ñuy concurrencer Wally fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy fu ñuy euh, tuddalee Wally ndaxte un Wally Seck ci benn réew dañ ko war a sécuriser Wally sekk tey dem États-Unis def featuring ak benn Chris Brown man ma nekk sénégalais Wally Seck nekk sénégalais tey man Wally may na ma ouverture boo xam ne bu fekkee am naa culture générale war naa ko mën a utiliser sans autant jaar moom ndax la fekkee na ñu ne un sénégalais def na featuring ak Chris Brown rek. tous les américains dinañ teg faar ci artiste euh, sénégalais yi ku ci góorgóorlu dafa dafa dafa gisoon duruloo wala keneen morso su boobaa musique Sénégal dina gën a am ouverture papa moo génn ñoom Aliou génn sama ñoom papa Youssou Ndour lañ amoon ñun Wally seek lañ am da koy nangu dund boo ko nangul nga dee voilà. sant <laughs> gërëm jabaru Cheikh ñaan aussi ndax aussi Cheikh moom la ñuy liggéeyal mooy sunu rakk mooy sunu lépp mais jabar su ko may woon jàmm. Cheikh du mën a féex. bay liggéey ba sunu doom di leen fi may tuut tànk ñu ko tuddee waali il di la vérité tiitalu ko xoxatalu ko. kon chapeau à sa femme. ñu koy gërëm di ko sant. li soxna li ñuy wax si soxna doy na sëkk du ma ci ñëwaat dama bëgg rek ñu jox sunu papa ji sunu sëriñ bi Cissé mu defal ñu ñaan su ko defee ñu mun ko yeewi ñu mun fee yendu ndax bu ñu toppee waxtaan wi dëgg mi yiw la mais. du du du du du xel aussi tam ndax comme ngénte la jigéen dañu war a dem toppatoo seen bopp ñuy wax daal ne doom ji yàlla na gudd fan yàlla na mu ni turandoom waale moom xam naa ne turandoo duñu dinañ bari ndax moo ko jëf ci moom moo ko jëf ci ay mbokkam moo ko jëf ci ñi muy liggéeyal moo ko jif ci àddina bi kon nag ñu ngi koy gërëm di ko sant fa mu ne yàlla ko suñu boroom jàppale mu ñëw ci jàmm te bàyyam ba jiitu yàlla ko suñu borom xaree na te yaayam ji yàlla ko yàlla gën a may gudd fan ko wér te yàlla lafal ko cat ala mu sali ala sayyidina Muhammad wa sallim jërëjëf Cissé. jërëjëf tubaarkalla léegi ku nekk ci ñun na ñaanal boppam ñaanu bi nag ku nekk dafay ñaanal boppam bur wax lu bon ci nit bul yéene yu bon ci nit. soo ñaanee lu baax. su ma defee ñaanu bi soob yàlla. yaa ngi leen fi maa ngi leen fi soobee yàlla yàlla dina ko nangu. incha allah incha allah ku nekk na ñaanal boppam sa ngeen péré péré ñu def ñaan ñu tëj ko bisimilah rahmaani rahim. bismillahi irrahmani irrahim bismillahi xayrul asmaai bismillahi rabbal ardi wasamaai bismillahi asbahatu wa ala allahi tawakkaltu bismillahi ala qalbi wa nafsi bismillahi ala diini wa aqli bismillahi ala ahli wa maali bismillahi ala maatani rabbi bismillahi alladi la yadurru ma ismihi shay'un fi lardi wala fi samai wa sami alalim allahu rabbi haqqan la usriku bihi shay'un allahu akbar allahu akbar azza wa jalla mimma axaafu wa azaru azza jaaruka wa jalla sanaauka wa la ilaha gayruka allahumma inni audu bika min sharri nafsi min sharri kulli sultaani sadid min sharri kulli shaytaani marid min sharri kulli dabbatin أن تأخذ بناستها إن ربي على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ إن ولي الله الذي نزل الكتاب هو يتولى صالحين فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر فاتحة بسم الله amiin. nee na ko ci tey la tey suba la tali bi waaye laaxu ngénte liir bi du ko jeexal impro dafa ñëw tey ci ngénte Cheikh ñaan guitariste guitariste mag bu ci réew mi ñu ànd ca kan ki la xam mooy Médoune l'homme fort l'homme qui rend les choses les plus vite et utiles waaye ki ñuy jox xam nañ kan la sëñ ki la xam ni mooy borom xaalis bëri bi ki xam ni mooy borom jikko bu rafet bi taalibe Serigne Babacar Sy Maodo Malick bi ki xam ni moo bëgg Wally ba mu jeex tàkk foo Wally yuuxu mu ànd ceeg moom muy Aziz Clé borom Amérique Aziz ah, yi ma ñëw yëpp du ma ne bii tudd moo ci dàqade waaye ci gën a neex ci la bokk ndax waxuma ku ñu tuddee doom ci sax waaye ki nga xam ne moo bàyyi Mali bàyyi Guinée bàyyi Côte d'Ivoire bàyyi Europe bàyyi Amérique ñëw fii Sénégal am nga Cheikh ñaa talaam macha allah ku ne soxla na ko waaye dafa ne Sénégal waaye dafa ne Waly buy liggéey yéene bi muy am ak ouverture bu muy am ak xam-xam bi muy indi ci liggéey bi ku ko gis da koy sopp ku ko gis da koy bëgg buur géwél yàlla mooy xam di boole Cheikh ñaa ba mu xamanteeg Waly matagul 10 ans waaye li ci xew bari na neex na yàlla na ko yàlla yokk ba tey mu jël doom ku ne xam ne Cheikh Niang ñu mu mën a tuddee doom Mali bari na bu dëgg waaye mu ne tuf na Wally Ballago Seck Cheikh Niang kenn du yow chapeau tu es le meilleur Cheikh Niang number one I am the one who said you number one guitar it's unbelievable When I hear you play guitar, it goes in my body, Cheikh. You make me feel good all the time, you and Wally Seck. We love you, Sénégal love you, everybody love you. Peace. waaw mais li ma jaaxal mooy da nga wax américain américain boo xam ne tey anglais boo wax tey jii géwël musu am am anglais anglais mais Aziz Kele kese mooy làkk anglais boo xam ne diggante ak Dakar la Amérique ak San Francisco loo ci wax. non let me tell you something. Aziz Gaye lan. let me tell you something. mooy lan. mooy déglul ma wax la dara. waaw. what I'm going to say. mooy lan. li ma war a wax. léegi la laaj góor <laughs> mooy lan. su ma ko waxee. waaw. everybody will understand mooy lan. li ma bëgg a wax. su ma ko waxee ñëpp dinañ xam li ma wax ci ku dégg anglais nag. ak can say, I've been to US, Los Angeles, California, 25 years. daal def na li ma wax léegi. mooy dama ne. ba ma nekkee Amérique ba léegi mat na 25 ans. United States Los Los Angeles California. ma fay dund musique nag. di fa dund art. man sama yaram yëpp aar la. boo doon bëri ay clé. Médoune. billaahi sama yaram yëpp aar la. foo ma laal aar day yëngu. moo xam muy way. moo xam muy tëgg. moo xam muy guitare. moo xam muy leneen ak leneen. ndaxte man ku ma xool xam ne seng-seng. Médoune yàlla na jàmm yàgg. sa télé bii sa site bii. yàlla na yàlla naay dellu Amérique di ko xool ci télé yi te yàlla mën na ko dina ko def sa xol dafa rafet yàlla na yàlla booleek sama jigéen sama xarit Jami Guèye Médoune kenn du yow. Médoune anglais yi may làkk léegi dama ko ko mës a wax benn jour mais fu ma gis loolu la may wax. mais Médoune waxaat naa yeneen tey. da ko koy Aziz. taalibu Serigne Bakk si Maodo Malick bi waaw sàmm liggéey bi la xam ni sëñ sa Birame Dieye am personnalité loolu am fula loolu bëgg waale bu mu jeex tàkk l'ami de Cheikh Niang ben aujourd'hui c'est la fête. oui aujourd'hui c'est la fête moi je suis trop content aujourd'hui d'avoir euh, voir mon frère Cheikh Niang donne le nom de son fils à Wally Ballago Seck. Seck c'est mon frère au Mali ça fait longtemps. on vit ensemble. Mais moi, je connais Wally depuis 2005. Moi, j'ai vu au Sénégal aussi mon frère vient au Mali, il avec Wally. Ça m'a beaucoup touché. À cause de moi, je le dis, en tous les cas des problèmes, s'il y a un problème avec Cheikh, quand il n'a pas trouvé Wally, n'a qu'à venir me voir directement. Wally, Cheikh, c'est la même chose de moi. Wally, c'est mon frère. C'est pas aujourd'hui. Je l'aime trop. Et puis je l'aime aussi. Et je di que Dieu donne longue de vie, le bébé sa maman. Et Cheikh, on dit toujours du courage. On a au Sénégal, on a des pays triangles, ça va aller, Inch'Allah. merci. tey ñu ngi tey ci ki la xam ne tey doomu ndeyam xaritam soppeem ku baax ci moom nekk xaritam loolu fonk loolu muy kan guitariste mag bi nee ko ci ki la xam ni su ànd rek waali ñoom ñoom ñaar ñuy pelloo te loo wax sa xarit sa bësu xarit bi. waaw macha allah euh, euh, dañuy santaat yàlla rek waaye daanaka lii moom euh, bettul kenn wax ndax day wane ni rek Cheikh Niang fi mu toll ni weesu na ak wali wàllu liggéey kese maanaam mag la ko jàppee kilifa la ko jàppee ba tey amaana ku dégg tur bi du la bett waaye nag euh, comme li may wax rek nit moom euh, bu baaxee rek baax na bu bonee rek bon na te yàlla dogal na Cheikh dafa dafa baax parce que yàlla dogal na man ak moom ñoo bokk même liggéey bi ñuy def si wàlli muy guitare te mu ñëw fekk fekk ma fi amaana bu bu ñaawoon rek kon tey jotaay bi duma fi duma fi mën a toog waaye nag alhamdulilah bi mu. amee jikko bu baax ba ñëw wax dëgg yàlla muy euh, nit ku compréhensif ku ku ma déggool yenn saa yi dañuy nekk ci scène bi sax dañuy xoolante rek ma def ko signe ne ko baal ma ma dem wala mu def ma signe ne ma baal ma dem ma teggi bàyyi ko mu dem donc communication boobu yëpp am na suñu diggante euh, comme mënuñoo wax lépp nag lépp temps bi duñu ko may ñu tënk rek Ah, te ñaanal bébé bi yàlla na yàlla na ko yàlla def mag bu am ñam magu islam ah, mu dund ba teral ndeyam baayam ñëpp fekke bi jaahi Mustafal Karim ah, defe naa kàddu yi fa laa koy yemale wasalaam jërëjëf. Mouhamed Sakho xaritu Cheikh Niane Mouhamed Sakho mi la xam ne yaakaar naa jóge na Mali jaar ko ñëw ex Sénégal ànd ak xaritam ànd ak doomu ndeyam ne tubaab bi naan fuyee bêché ne laissez nulle part où la may passe repasse la fête salaamaaleykum mbokku Sénégal mbokku Malien maa ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gërëm bon Cheikh Niang c' est grâce à Ben Transit International que je connais Cheikh mais depuis le jour que j'ai j'ai rencontré Cheikh c'est comme si c'est Ben Transit International que je vois tu vois c'est quelqu'un vraiment qui est très très ouvert dafa suufeel boppam quoi en fait suufeel boppam jullit la comprendre te tamit euh, bëgguma guddal wax bi comme grand bi nu mu ko wax grand bi muy bi wax noonu grand kii su Dieng bi muy wax tout day parce que man dama gaaw a jooy quoi tout day ma jooy lépp lu mu wax si Cheikh dëgg la tu vois donc kii tamit benn transit ku baax la moom bu mu xamante ak Cheikh wala dafa ne Cheikh boo gisul waali balaa ngay gis lépp loo soxla balaa nga gis waali rek wo woo ma ma ma ma ma faj sa say soxla waaw moo tax ñun ñett nii foo ñu gis ñooy ànd ñooy def lépp nga nuyul ma Cheikh bu baax a baax kontaan nañ trop trop trop. as instant mi Cheikh moom dafa bett Sénégal yëpp la bett li tax euh, parce que Malien ñu ngi toog di xaar tur bi mu ne moom Sénégalais la koy jox bet na ñëpp incha allah waaw loolu la ko war merci. voilà euh, euh d' abord tout d' abord mes salutations les plus sincères et sérieux euh, buur mi la xam tey mu ànd tey MPROD TV ñu ci Cheikh ñaan te relation avec Wally Je donne, je donne la parole. Je donne la parole. Relation, deux mots s'il vous plaît. Votre relation. Deux mots s'il vous plaît. Non, non, il veut que moi dise, il veut que moi dise. Encore. Non, encore. C'est des... Qui a commenté Hein? Ah, non. Ces relations, attends, ces relations avec ah. Wally, c'est des, c'est comme des frères, même père, même mère. Tu vois, c'est des frères, même père, même mère. C'est même pas la musique. Tu vois, donc c'est tout court quoi en fait. diggante Cheikh Niang ak yi nekkatul sax musique dépassé na musique quoi dafa mel ni ñoo bokk ndey ak baay waaw loolu la. jërëjëf waaw. c'est tout c'est tout ce que j'ai à vous. o kelen don o kelen don a tɛ wuli a tɛ tiɲɛ a dan de don wali balogo siècle la guitariste de chef de wali balogo siècle inchallah le maire le maire est venu il va il va partir jusqu'à Wembley dëgg la a dan nee na ko Cheikh nee na dëgg la yaakaar naa ne nee na dëgg la waaye Impro TV mu ngi toj Ndakaaru Ndiaye Impro TV nekk télé boo xam ne Sénégal ñëpp ñu ngi naan impro impro tey ñëw tey ci social ngénte Cheikh Niane ànd ceeg ay soppam ay xaritam ay am di jàmmam ay doomam du toit bi naan du toit bi naan fuyee béchee ne c'est nulle part où la passe et repasse waaye goto goto yàqu dir bi xam naa daanal la kon Cheikh kon euh, Wally Ballago Seck sa xarit sa doomu ndey ki nga sopp ànd moom ci valeur ak constance ak juddu ak jikko ak valeur ba loolu tey yegg tey jii la tuddee ko doom tey Dakar yëngu na Sénégal kontaan na ñoom Aziz Sy yi tey staff am gouvernement te yaakaar naa ni Maria Sy Mbissi Guèye yàlla jox na ko gouvernement gouvernement bi yegg si tey jii ànd moom ci kàddu yu rafet yi ak ci wax bi kon Cheikh jërëjëf Sénégal yëngu na ñëpp yëngu na nee na ko tu tu rends les choses les plus futures et tout dans ce pays soyez bienvenue à Dakar l'ami merci beaucoup. on voudrait juste euh, remercier notre chère femme <laughs> Madame Nia. qui est là vraiment depuis que Cheikh est là. avec la famille les enfants moi j'ai l'habitude de venir ici hein, et il est toujours accueillant. ça c'est vrai. Hein, calme gentille souriante comme vous le vous le voyez euh, di jigéen boo xamante ni euh, ku mën a ànd ak artiste la wala ma ne célébrité ndax euh, c'est pas facile de d'accepter hein, ou de vivre avec un musicien la maison est toujours pleine on est toujours on, on, on fait du tout, du n'importe quoi. Mais on, on dort à n'importe quoi. Tous les heures, vraiment. Et elle est toujours comme ça. Donc, que Dieu te Vraiment, que Dieu te bénisse, ta famille. Que Dieu te bénisse. Dieu te laisse avec Cheikh Nak. Waouh, Jusqu'à la mort. Moussé, madame, madame, Moussé. Moussé, madame. Madame Moussé. ah merci infiniment Cheikh Niang Cheikh c'est c'est c'est le Cheikh des Sénégalais. Cheikh Niang est, est par tout le monde Cheikh Niang est est, des Sénégalais. c'est le guitariste du peuple. ah quand tu regardes euh, les commentaires voilà ce que tu vois Cheikh Niang le guitariste du peuple et ça loolu kenn du ko wet <laughs> vraiment merci beaucoup. c'est que le début hein, cher. Ça c'est vrai. waaw le meilleur reste à venir. et tu verras que le Sénégal vous a adapté. le Sénégal vous a vraiment aimé. Ça, et ça ça va continuer inchallah. inchallah. tu es dans nos cœurs ah tu es comme chez toi. Ça, c'est vrai. C'est la famille, c'est nous dans nous. Mhm. Hein? C'est nous, chez nous. C'est vrai. Wow. Et dans nous. merci. Merci à Sidiki, hein, félicitations Seiba, félicitations, merci beaucoup, on est content. Hein, la famille, hein, maintenant c'est c'est la même chose. C'est nous dans nous. Donc euh, merci beaucoup à tout le monde. Vraiment, jërë ngeen jëf les amis de Cheikh, les frères. Ah, benn merci beaucoup merci infiniment jaajëf eh les filles merci. <laughs> dafa am kuréel bu ñuy wax Faramaren Diaspora Awa Doumbia mooy seen présidente. topp na Wally ba waa ba ba cinq ans yoo xam ne lu Wally def Europe mu dagg biyeem ànd ak ay nit. dem Wally du ko gis du ko xam ba suñu doom de Paris bu passé bii. la yàlla def ñu xamante ak moom musicien yëpp lañu xam fan yi la jógee Dakar sànq bi may ñëw dafa may woo dama tonton jour dama la soxla ma ne ko damay dem nii si Cheikh Niane jabaram dafa am doom bu góor mu ne yàlla nañ ko tuddee waal yi si seen yéene ñoom pour wax la ne la nit ñi ñu ngi suivre ñu ko bëggee te tey boo ko tuddee woon waal yi sax neex na mm-hmm. mais xelu nit ñi Cheikh vraiment li nga def nii rëy na ndax Wally yàlla dafa def bi mu yàlla dogalee muy woy ba léegi ku ko nar a tuddee doom sa bu koy nga xam nu mu lay wax tuddee ko yonent bi billaahi tur waaye yow sa tur wi yow du ko dëgg la yonent bi gën ñëpp waaye yow moom dañ lay nangul ndax li ma wax sànq rek moo ci nekk da nga jógee Mali ñëw Wally bëgg la am la fu mu la teg mais Seydou li nga def nii baal ma tuuti Seydou def nga lu foor ndax yéen a bokk métier mi waale leen jaboote mënoon nga toog ba 4 heures nga ñëw waaye da ñëw 9 heures toog ci wetu Cheikh Niane représenté musicien yëpp Seydou yàlla na yàlla fay yàlla yàlla may la gudd fan ak wér donc ñuy wax ne awa yàlla na ko yàlla fay dëgg la dëgg la moom ñoom waa Tamba lañu ak ñoom Fatita ak ñoom Awa ñoom Kirikou xale ya nekk Maroc ñoom Mari Waali ñi nekk Espagne Youssou nag maa ngi wax ci internet dama bëgg nag bu ñu yàlla dimbalee 2022 bii waa Espagne day fi mu ne nii ah dama lay wax dëgg de France amatu la ñu fay prouver seet leen yàlla non maa ngi ñëw waay waa xaaral Youssou rek may ma rek Youssou nañ ma mere parce que tamit nag waa Espagne Espagne Cheikh Niane il veut vous voir. donc Youssou yow mi yor affaire yi ak Ndiaga Euro de passage ñu koy gërëm moom it suñu grand ménager bu baax jigadiwul waale moom njaga jàpp na si bagage yi te yàlla ko yàlla gën a bàyyeeku waali affaire u Cheikh Niane Ndiaga Euro topp na ci dox na ci kii bi muy ñëw xam naa lépp ni mu demee donc moom mii ku baax la donc Youssou il faut ngeen xool 2022 bi waa Espagne ñoo ma ko wax donc xale yi faramaare ñi ne foofu yëpp nee ñu daal nan leen may cër ci 2022 bi kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant buur géwél sama rak sama xarit di gërëm suñu jigéen bi faama toog suñu wet moom tamit nga xam ne tamit jigéen ju mën góor la ngi suñu biir boobu ba léegi dayiwul demul fen donc daal yëf yaa ngi noonu di gërëm suñu xarit bi nga xam nag ci coon sekk la njëkkee medul mii moom xam na li ma koy wax événement bu Thione Seck mës a tëgg Médina nga fa boobu TFM la ne woon kaddu caméra bi macha allah actif ku baax la yàlla yàlla may gudd fan ak wér benn yow tamit yàlla yàlla jàppale madame ñaan merci beaucoup yàlla na yàlla jàppale yàlla may la wér ak gudd fan 50 yéen tamit mention spéciale fifty mii ak duguti ak duguti ñii ak duguti mii ak Pape Diop mii euh, mi ngi mel ni a Gadiaga mu ngi fii mais yéen dangeen bëgg a waale ba wax dëgg yàlla nit ñi bari bari bari bari bari ngeen ngeen taxaw rek jaay seen bakken wan nañu ne tey bu doon. ay ci suñu ah biir sax daf ci am ñoo xam ne. dëgg la lu waali newul newuñu dëgg la dëgg nag waaw dëgg la. waaye dëgg la xaaruñu waaye. dëgg la seen présence bi fii tey neex na de. kontaan nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax a baax. kon nag yaa waaye doon toog tudd bi tey la waaye nii nag mooy àddina. Mhm. waaw non dëgg la Youssou non dëgg la kenn du fi la dëgg la waaye nag mi ngi waaye nag Youssou mu ngi mel ni mi ngi fi yow foo teew rek mooy waali. Aziz Kele fu mu teew mooy waali Fifty fu mu teew mooy waali ba ci caméraman yi sax ku teewoon dinañ xam ne waali. kon nag Dieng yow it mention spéciale boobu ba léegi bu Cheikh amee doom toogoo. ba démb am nañ événement ma wax la waaye bu ma demee ba 4 heures 5 heures gisuma la laa xam ne yaa ngi fii te disponible te nag Youssou ba ngay xam aar lu tey de 19 ans nga tukki macha ngay ànd ko waali yéene ko nii lañuy def fii ngay jaar nangam nangam waale xam ne danga ko amul njëriñ. kon nag Dieng lépp loo daj ci nit ñi yàlla na ko suñu borom fay. yàlla na yàlla dolli sutura. kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax yàlla nañu dem ba yàlla may ñu xale bii di ko Ballago Seck Wally ko ñaan ñu koy ñaanali jabar yàlla mën na ko de. te yàlla nañ ko fekkee. ku fi indi jàngoro yàlla ko yàlla suñu borom faj. ku fi indi aajo yàlla ko suñu borom faj. yàlla yàlla may ñu wér. alhamdulilah rabbil alamin kontaan nañ jërë ngeen jëf ci olof Njaay na béy am na sikkim na ngay kilifam waaye laa ko ngeen te liir bi ko jeexal jëmm ji toog nekk lépp ci waal yi nekk koo xam ne xale bu am jom la xale bu am personnalité xale bu am qualité xale boo xam foo gestu seen mariage sama si bigée daago daago diggéen bàyyi mu daago ci ginnaawam tey loxo ci sa bésu xarit ak turandoo bi ak bésu Cheikh Ñaan salaamaaleykum ginnaaw ba ma sante yàlla sama ñaari gërëm sama yaay <laughs> sa diggante ak Cheikh waaw Cheikh Cheikh dafa nekk koo xam ne seen nam yi nekk na koo xam ne ku baax ku bëgg nit fonk nit dip bi dip mu ñëwee fii ba léegi yàqu ko vraiment comme li Père Jo wax rek ak Youssou Dieng bi mu ñëwee fii ba vraiment euh, yàqul yàqul aar bi daal nekk sama xarit nekk sama frère bi nga xamante du tey man nag bi mu ko xamee ginnaaw yàlla waali moo tax ma xam ko waaw mu nekk ku baax bëgg nit fonk nit waaw ànd ak doomu ndeyam benn moo tax mu xew xewle mu woo ma ne ma day def xew ma ànd ak sama xarit Pape Diop ñëw fii xam nga Pape Diop sama sama sama rakk bu baax la moom moom tamit waaw ah, comme ni xam na mais ñoom Perzo vraiment kenn moom Youssou Dieng Aziz Kale ah Perzo Seydou Youssou Dieng vraiment vraiment lépp ñëw nañ musiciens yi techniciens yi sécurité yi umul tamit yàq ko ak Salimata Gueye soxna Aïda suñu yaay moom xam naa xel yëpp mi ngi fi mais ku ñu tuddee doom ji moom mun naa leen sam patron la parce que Wally la ko tuddee waaw vraiment macha allah kontaan nañ trop waaw parce que dañoo kontaan bu mënu wax kàddu moom bu moom bëgg joxee ni mooy benn transit ah mooy benn transit international ren benn moo bëggal boppam seen Saliou dafa luy 4 bis 4 bus climatisés aller-retour gratuit nourri logé nourri véhiculé pour pour gars yi dem màggale ji magal Touba bi dama bëgg gars yi nuyul ma ko vraiment lu mu def rafet na trop yàlla yàlla rek koy fay quoi vraiment benn transit merci beaucoup. yaakaar naa ne nee doon trop waaye dama wax ci turu euh, MPROD TV Médine dama yónnee ci turandoo bi. sama patron sama xarit mu ni ma gërëmal ko Maria Simbi si bi ngay daago daa diggin bàyyi Koura Fall diggin nee na ma gërëmal ko Wally ci turandoo bi ndax turandoo dafa fort ndax ko tuddee doom desutoo dara te yaakaar naa ne Wally dafa baax mbiru nee na mu ngi koy sant gërëm di ko ñaanal turoon tur bi doon borom tur bi euh, waaw benn c'est le meilleur nee na ko Médoune yónni ma ci tey improtive bi moom yónni tey ci turandoo bi turandoo bu Cheikh Niane ñëpp xam nañu diggante ak ak Waly Balago Seck waaye ñëpp xam nañu diggante Médoune ak tous les artistes ndax artiste complet la Médoune en même temps ndax nee ko ci impro fépp lay dem amul xaajal seen waaye dafa yónni ci Waly ñu gërëm yu Waly Maria Sima Sibigé ndax tur bi yombul ndax tey moo téye Cheikh Niane ci ñaari loxo ba Cheikh am fit mun xuus ba tey am fit turandoo la di la sant li nga def tey li nga def ci Cheikh ba yàlla def doom juddu ba ñu kon doom day kon Wally tontu na sa ndey baax ja jaaga nee naa ko ci ñu gërëm ñëpp di sant ñëpp improt 100 pour cent la improt ak tey Mbour TV tey ñoo ànd tey di doxantu tey pour wax askanu Sénégal lu tax bi naan fiyee béchee ne leen c'est nulle part où la mais passe et kon nag improt nan gaaw